Sentec di entreprise bu garantir ci GPS dégguma di GPS dernière génération 2.0 IP 68 résistant à l'eau Manam bu du def dara yamuñu GPSB, GPS bi buñ la ko montalee fi nga auto dara du ci sa wala sa moto ndax dangay xam fu mu sa xel ko poursuivre ko en temps réel blocage à distance alerte accès vitesse alerte par message les petits sa téléphone tablette ou ordinateur donc le rare. pour sécuriser ses auto ou say moto ku ci soxla 77 881 34 84 adresse nous ngi nekk Liberté 6 ak innovation seen le jeex na man moom rek mbokk yi tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy arène nationale mbokk yi tey di premier octobre ku ñu fi woo kan la Ibrahima Diop borom Kajoor production mbokk yi mu woo ñu tey combat bi nga xamante ni combat de déclenchement lay doon waaye combat bi nga xamante ni mbokk yi ñaari xale yi di si bëre ku si daan ku ne sa buntu làmb dina gën a tijjeeku mbokk yi Ibrahima Diop damay dem ba jàmm gën jëriñ Mama Lamine Sarr boole kàk ki nga xamante ni mooy Goro Sok doomu mbokk mu na nek combat bi nga xamanteni tay ñaari xale yi déggoo mën la bu arbitre sifflé ba génn seen diggante billahi jibi di nga contane mbokk di nga gis bëre di nga gis xex waaye di nga gis njambar si ñaari xale yi di bëri ay ndaanaan nañu ay champion nañu way goxu lamb lañu ñu ko nga xol goro sok ma sha allah nga xol ko physiquement xamni il est prêt pour affronter mamad Lamine sar way jibi bo xoolee mamad Lamine sar moom tamit nga xamni tuddul won di nalaw physiquement il est prêt pour affronter ki nga xamante ni mooy Gora Sock mbokk yi nag beneen ndam mooy génn. am na lu mu tibb si tànk Gora Sock am lu mu si wax dal di nga tur si yaram bi jibi xoolal Gora Sock laay lee la laa tey ji xare ba dara de tey ji mbokk yi di gis lu yéeme làmb ji nga xamante ni ñu bëri jàppoon nañ du am waaye tey am yaakaar. xëy na fii ak ay 2 minutes 3 minutes at bi bi dina sifflé génn si diggante Mama Lamine Sarr ak Gora Sock ñoom ñaar ñu jëflante waaye di lancer waat message bu am solo ku si daan na xam ni lamb nii la nga féliciter sa adversaire wala waaye ki ñuy daan na xam ni lamb nii la nga féliciter sa adversaire te xam ni ñaari xale yi di bëre yéen a may ndax xaalis. yéen ñaa ñuy bëre da ngeen fair play yéen ñaa bëre ngeen xamee wu leen yàq làmb Bamba xoolal ma Gora Sock nga xoolal ma Mama Lamine ñoom ñaar boo leen xoolatee seen taxawaay da xam ne ñaari xale yi pare nañ pour jëflante tey ñoom ñaar boo leen xool Mama Lamine sax am na ñu mu jël toj ko lan la toj noonu nen waaye ku toj nen rey nga cuuj bu ma abaloon ba ma am leen ko wala ma may nees ko ku nekk man ci jël sa wàll ndaysan eh mama Sarr ñoo ñong koy xol ba niinul am ñu lu mu waxante grand frère de cité bi ñom ya joxon nañ loxo mu ni tay mama Mame Lamine amoo droit de erreur tay mama Lamine sa bakkar nga war tek fi tay xare Badar ndaxte tarki ndaanga waaye Gora Sock passé am ñu ko wax niko goro mama Lamine même bu bëriwul tay da nga wara fekk ko fu mu taxaw xeex ak moom duma ko jàpp ko doo ko daan dina am ak doo am mbokk yi léeg mu leer arbitre am na lu muy wax ñaari xale yi ñoom ñaañu tolloo taxawaay loolu Mama Lamine Sarr waree jàmm gën Gora Sock waree parcelle ñoom ñaar ku nekk bëtt ci mekkaay mbokk aujourd'hui le 1er octobre 2023 ici à l'arène nationale journée Ibrahima Diop Kaja les deux Gaillés, les deux combattants, les deux Djeto, Et Mboki, Nyongi sommes Jakarlo, nous sommes Albi eh Mamor Lazana Mamor borom Lazana borom touché du Bari, Mboki a yaay Siteu la maa ngi koy Mamor foo fayte Mama Lamine Sarr ngi noonu góor a Mama Lamine Gora Sokine ndeysaan ñoom ñaar te arène nationale foo sànni mu tëj waaye Leuze borom LS Pro mbokk yaay ñëkk jëriñu borom t-shirt baax yi nuyu naa la mbokk yi Mama a tey différence de différence feeñ na fi différence de poids jibi différence de poids tey feeñ na fi. diggante Mama Lamine Sarr Gora sok am na lu muy wala Mama lamil am na lu muy seere jibi boobu dóor mu daanu bi la de lapp tak bi la mbokk yi Mama Lamine am na lu mu téye sa loxo ba lapp tak wala la al bi nee na pare ngeen je paré ngeen ñu ni waw Mama lamil na waw goor paré na mu ni waw arba bi la boki seen digënté bokki bokki té le dimanche premier octobre 2023 eh Gora Sock a Gora Sock moom la jëli bam bam tamit jël na ko jël ko jël ko jël ko jël ko attention plaqué ko daan ko vite fait bien fait vite fait bien fait vite fait bien fait Gora Sock daan na Mama Lamine bu amul benn werante vite fait bien fait même pas 20 secondes Gora Sock il a tracé Mama jibi avec la manière mbokk yi fii si arène jël ba rëy na amul benn Bamba Gora Soko dam na Mama Lamine vite fait bien fait neewoon na ko du yàgg neewoon na ko man ak yow ba dem ba tontu la aca ñu il n'est pas de mérite. il n'est pas de mérite moom Mame Lamine Sarr. ndeysaan daa gëj si géew. daa gëj si géew ndeysaan. ndeysaan. am na benn wax ak moom ku gëm yàlla la. di courage champion. jiri di courage.